kër yi moom lekk leen dagan ci sartoog ñu rendi leen dañ ko xamee juri kër yi mooy gëléem ak nag ak gàtt gàtt mooy xarak bay yooyu la tudd tudde juri kër naka noonu xewaan yi nekk ci géej lépp lu dund ci biir géej nu mën a mel lekk ko dagan loolu mooy masabu imam Malik naka noonu picc yëpp liy naaw yi naaw yëpp yëpp lekk leen dagan ci masabu Malik moom ahadis euh, yi wax ne dañuy araamal kullu zi ak nangam yooyu moom da ko weddi mu imam moo xam ne tuyóor yëpp la yëpp dagan rabi àll yi nga xam ne dañoo dëkk ci àll bi te duñ fàdd duñ lekk yàpp yu ci dul yi ab yax rot ci araamal ko yu dagan lañ lu mel ne kéwél yeeg ñoom seen yu mel noonu ak nag li ñuy tuddee xashaasul ard yi dox ci suuf sax yeeg jiit yéeg gunóor yeeg yooyu yëpp yu dagan lañ ak socce bi ku ci am aajo bu ñëwatee mën nga ko jariñoo yi araam nag maam ko ci jiitu ndax yaxub alxuraan moo ko araamal foofu nag dinaa bàyyiloo xel mbokk yi ne ngara ngara mbaam xuxul xinziir wax sii la tudd wala xinziir barri borom téere tafsir yi sax dañoo saxal ne xinsir bi alxuraan di wax mooy xinsir boobu ne ci àll bi waaye xinsir yi na ci kër yi amutoon ci arab yi jamono yi alxuraan di ñëw kon yàpp mbaam kooku yi araamal mooy xinsir boobu léeg nag njuumte da ci am ñu di mbaam àll moom lekk ko dagan waaye ngara du mbaam àll mbaam àll aw rab la woo xam dem ay rëdd diggante fas ak mbaam lay nekk luy xaw a nurul te am ay rëdd yu bari gëw mu ne bari na senegal kuy seetaan yenn documentaire yi da ko ci gis loolu moo tudd mbaam àll moom lekk ko dagan waaye ngaram mbaam xoox la ku ko lekk lekk na mbaam xoox bàyyi xel yooyu naka noonu mbaam kër yii dafa xaram ca xaybar la yonent ay salaam ne araamal mbaami kër yépp ak baax la yi am na ñu ne fas boole woon na ko ci am na ñu ne da ko ci settee moo tax ci mazhab bi wuute da ci am ci fas waaye liñ liñ jàpp fii moom mooy def xaram donte am na ci biir ngër mi ñu wax ne fas dagan na moom ndax da ko settee woon ci waraamal kon mbaam kër yi dafa xaram mbaam xuux dafa xaram yi ci dëkk ci àll ba ak yi ne ci kër yi naka noonu meddu lépp lu am deret lépp loo xam ne boo ko rendi woon mu naaj su meddee aram comme juri kër yi ñu waxoon léegi buñ ko rendee lay lay làpp waaye bu xasee mëdd aram bu dee rabi àll yi nga xam ne nag dañoo ne ci àll bi di fàdde moom dañu ne sib ñoom gayndeek bu keek till ak ñoom seen dañu ne sib ñoom ku leen lekk loolu mooy yi nga xam ne ci tënk téere yi jàngale nañ ko ci rab yi waaye lu mën a xew ab jurit wërta jëfandikoo mbir te gëstu ko ba xam daganawul daganut aw ñam moo ci yées lekk loo xam ne bu xasee tàbbi mënatut génn war ngaa gëstu ba mu leer bala moo tàbbi wallahu taala alam